war cee dellu si tey muy laaj ji nga xam ne ci la yàlla yi teree jullit buy xeeb morom ja moo xam góor la moo xam jigéen ni ñu koy baaxu ci defe mooy jàngal aaya door ñëw ci jéem ko firi ak jéem ko tekki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر laa yasxar qawmun min qawmin asaa an yakunu xayran minhum wala nisaaun min nisaa wala nisaaun min nisaain asaa an yakunna xayran minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم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 borom bi subhaanahu wa wàcce woon ko ci aw gaay wàcce woon ko ca seen sëriñ muhammad ibnu abdullah wax ko ne defar ci pénc mi la pénc mooma ëppe sens pénc mi nag pénc mooma danoo doon ñaan an'amta alayhim bokk ca an'amta alayhim siraatal lazina an'amta alayhim te mooy lu ca waay xam ca bis ba nga koy tàmbalee jàng jëfe lu ca waaye xam ci tere ca bis ba ngay tàmbalee jàng bàyyi ko waaw pencum tey nag dañuy xam di denc dañuy xam di denc te bañ a bokk ci xam di denc moo tax ñu naan xayril maxdubi alayhim moo tax ñu naan wala doolin xam di denc ak ñàkk xam loolu la ñu penc male rawe penc mi mam mën nañu wax xam lu baree bare bari waaye dañuy xam di denc ñoom nag ku ma sa xam dangay dem sa kër jàng nooy jëfe loolu nga xam tey ba ñu bis ci kër gi waaw dégg ba euh, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba mu wàccee yàlla wax ne li feeg mënoo joxe loo bëgg baaxagoo benn saabatoo këram génn musaaram daal ne tey moom daanu na laa ji daaneel na ko tey laa ji nërmeel na ko mook moom ba mu yàgg mu jóge ca kër ga wuti jàkka ja fekk fa sallallahu alayhi wa ko laa ji de dafa wax démb lu ma doon jàng ba tey mu ne waaw ko mokk na mu ne ko ah mu ne ko sama sama terrain bii ci wetu jàkk ji jox naa ko jox naa ko yàlla jox naa la ko mu ne ko lu tax mu ne ko laay jee wax démb lan raxataatum birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun ma doon seet sama alal yi ndax sama lal bi wala sama néeg bi wala sama kër gi wala wala wala lan moo ci gënal ma gis ne terrain bi ñu daan ànd maag yow jinaan ci siyaan yi moo ma gënal ci sama alal léegi ma bëgg koo joxe ndax yàlla yëg ne baax naa yonent bi woo ay bokkam jox leen ko sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi maa ngi ci aaya onze ci suratu al mud euh, suratu al bi daf ne yaa ayyuhal lazina amanu e yéen ñi gëm waaw ci ni daa aatu rahman li ahlil iman góor ga Alaaji Ibrahima Saaxo mu ne fëx leen rek bi ngeen dégg yàlla si amoon daal balaa dara xew mun naa mu ne ba leen seenu xel waaw firikat boobu tabarkàlla te mën na jàng rahmatullahi alayhi wa radi anhu <laughs> kenn mësu ko gis mu ne boo déggee yàlla si ne amoon rek fëxal bu fa nekk naan lu mu wax ak lu muy bëgg a wax nee na fëxal rek waaw benn xamal ne lu ñuy tere la mbaa lu ñuy dégle la bu dee lu ñuy tere ku raw nga raw bu dee lu ñuy dig lu ñuy joxe mbaa ñu koy diggee ku am nga am fëxal njëkk la fëx rek mal départ daal moo baaxul moo ko daan wax yaayu li si naa mënu ey eh, yéen ñu gëm kaay leen wuy si ma yàlla woote lu muy tere tey mu ne laa yasxar bu mu di reetaan xawmun aw góor min xawmin ci aw góor defe na ñoo leen tane bu bu genn ñenn góor di reetaan aw góor ni ñoom ndax defe na ñoo leen gën walla ñoo leen man wala ñoo leen raw wala ñoo leen tane ndax asa mën naa am ay yëkkoonoo ñu nekk ñoom ña ñuy ree reetaan xayran di gën minhum ci ñi leen di reetaan bari na kuy xeeb nit ndekki ngay xeeb moo la gën waaw waaw suñ tubaab daan wax ne radiyallahu anhu léeg-léeg nit ñi ne ci barab di siyaare borom barab ba ndekete goloo ko gën fa yàlla ëpp ko fa cër cëtëtëtë wala bu mu reetaanit bu aw jigéen reetaanit min nisaa yi niw jigéen ni ñoom xeeb jigéen néew li tax nga xeeb ko mooy xay na am nga lum amut wala nga xam nga loo xamut wala dëkk nga fu mu dëkkut wala wala walla asa an yakunu an yakunna xayran minhunna bëri waa aw jigéen di ree aw jigéen ndekk ñuy ree ñoo leen gën mbokk yi bind bi weesu gisoon nañ ci ne reetaan jikko yéefar la ak naafiq allazina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina gisoon nañ laay gisoon nañ ne fi ñu tegoon suñu baaram as-suxriya tumitul qalb wa tuuritul xafla reetaan day rey xol wax naa nag ne nañ nañ nañu seetantal ree ak reetaan ree day faj reetaan day rey lan mooy ree ree mooy ku dégg lu saf xorom nga ree loolu moom day faj ree ak fudd ak teel xëy naan waaw ak di bég ak di joxe yooyu day faj waaw nay day day nay nay day rey xol waaw ku ne këj du ree mukk loolu day rey xol waaye reetaan it day rey xol te mooy xeebaateeg gis nit di ko di ko di ko kooku li ma tax ma ne yowmal xiyaamati sunu borom subhaanahu wa taala daf nuy wan ne ñi doon reetaane danañu ko rëccu waaw ndax an taqula nafsun yaa xasrata ala ma farratu fi janbillah wa in kuntu la min assaaxirin ca zumar aaya cinquante yàlla nee na nit dana ñëw yomal xiyam daat ne way man alku naa yaa xasrata way man réccu naa ndax dama ëppaloon dama ëppaloon fi la dama doon def lu ëpp dama doon def lu ëpp def loo daan def mu ne xanaa ku ma gis xeeb la ku ma gis reetaan la hmm? waaw waaw gisoon nañ ko ci bind bi weesu mbokk yi assuxriya assuxriya aaxibatuha waxiim reetaan xeeb nit ñi ku koy def sëg mujj mën naa ñàkk rafet waaw waay daa nekkoon ci ab dëkk bewa bewa bewa ba bu añee ba noppi buy tux euh, ñaari téeméer lay jël raab ci pon mi <laughs> raab ci pon mi xëcc xëccaan sànni waaw buy tux nun lay def bu demee bay raxasu boisson lay raxasoo doora yàlla ndi loxo ya bi muy dee mi ngi yalwaan waaw bi muy dee mi ngi yalwaan mu tax kuy def koo gis ree ko reetaan ko koo gis xeeb ko foofu rek ngay mujj noonu dem ci suuratu almutaffifin borom bi subhanahu wa taala jàngal téere bii nga xam ne dañoo war a xam li ci nekk tabarkal téere bi nga xam ne war a xam li ci nekk waaw saa boo taalee léeg-léeg nga seen sunu mbokk iraa ndaw ne ca te la boo taal ñanga ca téere bi dañoo war a xam li ci nekk bu ñu demee ci suuratu jàpp ca ay vingt-neuf yàllaa ngi fay wax ñiy reetaane fu ñu mujj ëllëg أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتقامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين wa ida raawhum qaalu inna haulaai la dalluun wa ma ursiluu alayhim xaafidin falyawma alladina aamanuu min alkuffaari yadxakuun ala alaraaiki yanzuruun hal thuwiba alkuffaaru maa kaanu yafaaluun sadaqallahu alazim borom bi subhanahu wa jaam ñi nga xam ne dañuy reet reetaan ay jaam ni ñoom yàlla nee na inna la si na ajërëmu nee na kàccoor yi criminel yi ñi jaarul fa muy jaarlu ñii def li muy tere ñii tooñ ci pénc mi ñii def ay crime ñooy ree ña ca nekkut yow li yàllay tere yaa ngi ci kee ma nga ca li muy digle yow mi ne ci li yàllay tere ngay ree ak reetaan kan ci la yàllay santaane waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne lañ koy reexe muy sikkim ba mu am te di ko ca ñaawal lañ gis xam ne ki lañ koy reexe mooy fulara gam teg ko ca ñaawal léeg gis koo xam ne kii ñàkk a jox loxo jigéen ga muy ñàkk a jox loxo ca lañ koy reetaane te di ko ca ñaawal gis koo xam ne kii colam gém sol ca lañ koy ree te di ko ci ñaawal sunu borom ne lu ëpp àjjira moo ñooy ree min la si na amanu waaw allasina ajramu ñooy ree allasina amanu te xanaa moos bu ree doon am kay allasina amanu ñoo war ndi ree allasina ajramu waaye saf safaan bee am yàlla nee na ki ki may xëyil kii xëyal iblis moo koy ree mu ne waaye dox leen rek dox leen rek fii ci àdduna la sunu góor gi maxtaar xaaj maxtaar jëng waxoon day sant RTS waaw adduna de kum neex lu la neex waxal waaye ku dee noppi waaw sunu góor gi alaaj njaga njaay daal di suur añ dem dugg ci néeg ba <laughs> ndeke dégg na wax lay wax ja daal koy daaneel mu dugg ci teg ku dugg ndeysaan dugg ci néeg waaw àdduna lu neex waaye na wax mu ne ah, mu ne waaye ku dee noppi ku dee noppi de sëriñ Cheikh na lu waaye man di def daal ko dee um koor xamu na kañ ngay dog noonu la ko waxe woon inna la sina ajramu ha kaanu min la sina amanu yadhakuun yàlla ne na wa isa marru bihim yataxaamasuuna ñooñu gëm yàlla te jéem a góorlu bu ñu rombal la sina ajramu ña ngay wakkante di leen joxoñ ña ngay wakkante di leen joxoñ <laughs> gars yi ngi nii ñii dey nangam di teg ay baat ci ñoom rek nee na ku ñibbi sa kër nag ku ñibbi sa kër def temu li nga gis tey man de maa gis ku mel nangam tey man de maa gis te kat allasina la ñuy wax maa ku soloo nangam tey man de maa gis koo xam ne tey jii lam sol nangam rek waaw sunu borom nee na duñ ca yem naan inna haawulaay la daaluun wa isaa raawhum xaalu inna haawulaay la daaluun maanaam naan leen ñii dañoo sànku ah waaw waaw ñoom ña nga xam ne la sina ajjërëmoo ñooy wax ñi la sina amunoo dañoo sànku dañoo sànku waaw mu yéen mbokk yi bu fekkee ña taxani woon la jësig ja lekk ña nappi woon ñoom luy xew bu fekkoon ña taxan woon ñoo dugg ca teen ba mu ñorooti woon nag ah sunu borom daal di jël kàddu ga tontu leen waa maa ursilu alayhim haafizina yéen kañ ngeen fi nekk ay yonent kañ ngeen fi nekk ay yonent kañ ngeen fi nekk ay expert moom ndax maa leen yónni ci ñoom ba ngeen may corriger ñi lu seen yoon ci seenu col lu seen yoon ci seen melo lu seen yoon ci lu seen yoon ci waaye dox leen nuy reetaan ñooña di leen reetaan ndeysaan addunay dox ba ñoom ñépp ñu faatu addunay dox ba adduna tukki adduna yi dox ba nit ña dekki sunu borom daal di delloo si nag ña doon reetaan ak ñañ doon reetaan fal yow ma tey nag <laughs> sunu borom ne tey nag mbir mi walbatiku na dangeen doon dox jëm ñaaju jëm jëm jam ñaaju yéen ñëpp ñu walbatiku na taxaw leen ñu taxaw ñu ne walbatiku leen ñu walbatiku ñu ne dox leen jëm sow ña jiitu woon ay des ginnaaw fal yow ma fal yow ma yàlla mu ne fal yow ma tey nag fii ci àllaaxira allazina amanu ña gëmoon minal kuffaar yadhakuuna waaw ña ñooy ree ña leen doon ree loxo akbar kon gis nga xeeb nit ak ree ko ndekete mujjantal ga fal yow ma tey fii ci àllaaxira allazina amanu ña gëmoon ñu leen doon reetaan ci àdduna mu minal kuffaar yadhakuuna ñooy fayu tey ñooy fayu tey di mu tax tunkara ni moon waaw doo doo fayu ma ne ko déedéet lu tax ma ne ko jotagut yàlla nee na ku ñu fi def dara soo muñee boo liggéey mu fayul la te fayoon te day yàq programme day yéexal ab dox tunkara mu ne am ah, mën a ko ibnu taymiya nee na kéwal daw rab bi koy dàq xolo moo dàq daw rab bi koy dàq waaye xam nga li tax rab bi di ko jàpp mu ni déedéet ma ne ko day boole daw ak gestu maanaam day daw ak natt lim dawagum kuy daw di nattu li nga dawagum dab la day yomb di sànn alal araiki yanzurun yàlla mu ne ñiñ doon reetaan ci àdduna ñooy fayyu ca ña leen doon reetaan te nag ñu nga tëdd ca kaw ay njoowaan tabarkalla di xool hal thubibal kuffaaru maa kaanu yafaluun ndax fay nañ leen ndax fayu ngeen ndax doyal ngeen xaaj bi Achille Touré nee na bu ñu nee déedéet sunu borom ne biisaat leen affaire bi bu ñu nee waaw mu nekkoon fin maa ngi suratul xujuraat maa ngi ci aaya onze yàllaa ngi tere aw góor di reetaan aw góor mi ngi tere aw jigéen ji reetaan aw jigéen ndax mën naa am kii reetaan ki muy reetaan gën ko la mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ak suxar ya reetaan fa muy mujj baaxul ci kii reetaan ki ñii reetaan nag moom mën naa am la ko cay dal du métti ndax moom dana fayu incha allah yàllaa ko wax ci alquranul karim ci saar bi ma doon jàng léegi muy sóoratu euh, muy sóoratu almutafifin ba tey reetaan googu ba demee ci suratul ahzab ay cinquante huit suratul ahzab ay cinquante huit yàllaa ngi fay wane ne ñi nga xam ne dañuy reetaan fu ñuy mujj ëllëg it foofu du baax waaw fu ñu mujj ëllëg du baax aouzu billahi min alsheitan walladina yuduuna almuminina walmuminaati bi gayri ma ktasabu faqad ixtamaluu buxtaana faqad ixtamaluu buxtaanan wa isman mubiina sadaqallaahu l-asiim yàlla nee na ñi reetaan ñi ko gëm di aw góor di leen xeeb ba loola indi leen loraangee ki ragal wal mu'minaat di reetaan jigéen ñi gëm bi xayri maktasabati defuñu dara ñi koy def faqad ihtamalu buhtaanan ña ngay sosal ñooña waaye itam ña ngay yenu sos ak bàkkaar yu leer naññ fu ñu jëm ànd ak bàkkaar ya mbokk yi ma xujuraat aya onze yàllaa ngi tere kuy xeeb nit di ko reetaan ab ñu nit ak ñu ka mën mu ngoog beneen bi asaaxir baidun an rabbi xaribun min alcheytaan kuy reetaane kuy reetaane day jege cheytaane day sori borom bi subhanahu wa loolu lay loolu lay jural nit waaw waaw di reetaan nit yaa ngay yaa ngay sori sa boroom yaa ngay jege seytaane waaw ah yaa ngay sori sa boroom yaa ngay jege seytaane ndax ñaar ñu ñoo fi nekk ñaar ñu ñoo fi nekk ñaari parti yooyu xisbu rahmaan ak xisbu seytaan kuy reetaane ku nekk nag yaa ngay sori xisbu rahman yaa ngay jege xisbu shaytaan waaw waaw tabarkalla borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquranul karim innahu kaana fariq auzu billahi min alshaytan arrajim innahu kaana fariqum min cibaadi yaquluuna rabbana rabbana aamanna faghfir lana yaquluuna rabbana aamanna faghfir lana warhamna wa anta khayru raahimin fattaqastumuhum sikhriya hatta ansawhum dhikra ansawkum dikri wa kuntum minhum tadxakuun inni jazaytuhum alyawma bima sabaru annahum humul faa'izuun sadaqallaahu al-aziim ci ndeke yàlla moo bañ koy reetaane yàlla moo bañ koy xeebaate allahu akbar yàlla moo bañ kuy reetaane mooy moo bañ kuy xeebaate waaw xaaj xaaj abdul asiis rahmatullahi ali dabbaax nee na yonent yàlla nuux tuddutoon nuux weneen tur la amoon mu ne waaye ab xaj la gis bu ñaaw nooxun yendoo ree xaj ba waaye bii xaj a ñaaw waay di ree xaj ba ba ba sunu borom defal xaj ba wu lemmiñ xaj ba ne ko ah bul defee ne man ngay reede ki ma bind nga teg cuune nuuxun xam waaw wallaay ndeysaan xaaj ba ne nuuxun réexoo ma ndax man ni ma mel defuma ko sama bopp ki ma bind moom nga teg cuune moo waral sérée yi nuuxun xam nee nañu sëgg na ko ay at nanguwuti siggi xool nit ñi ndax ndax ruus ci li ko xaaj bi wax wax na dëgg nag waaw xaaj bi ne ko man bind ba sama bopp ni ma mel dañ ma ko melal ki ma bind yow moom nga teg cóone moo waral sa ree ji foofu nag jar naa dugg ndekete ngay xeeb ak reek def yëf moom ni mel melulu ko boppam dafa am ko ko bind bu ñu wax ku ñu wax alxaaliq muy sunu borom subhanahu wa ni mu mel moo ko binde nii su gàttee mooma su guddee mooma su ndaamaa mooma su njoolee mooma bu rëyee nu nit mel rek yàlla ko binde noonu bis boo ko reetaanee yow duwaa ji nga amal affaire ki ko bind nga amal affaire ndax moo ko bind nii waaw waaw sunu borom nee na <laughs> ca suratu al waaw aaya téeméer ak juróom-ñeent jëm kaw mu ne innahu kaana fariq min ibadi mu ne dafa amoon benn groupe bu bu buy sag sàkku mbaax di xeeñtu mbaax min ibaadi bokk ci sama jaam yi foo leen fekk ña ngay xeeñtu mbaax di wut mbaax di jéem yar seen njaboot ci mbaax ba noppi yaquluuna ña nga naan rabbana yow sunu boroom gëm nañ la yàlla na nga nu suturaal yàlla na nu yërëm ndax ñiy yërëme yaa leen daq yërëm yàlla nee na bi ñuy di wax lii fa taxastumuhum yaa ngeen leen di reetaan ngeen leen di reetaan di leen xeeb ba ba reetaan yaa xeeb ya fàttel fàttel tax leen a fàtte yéen fàtteloo sama diggante ak yéen dafa mu jàgg reetaan nit ña mooy seen programme ba far ngeen bàyyi fa sama programme laay <laughs> laa ñëer yépp fattaxastumuhum sixriya xatta ansawkum dikri ne ciw nit di leen xeeb boo xëyee yaa ca ñoom ba far loola far fab bi sa programme yow noonu ko whatsapp di defe léegi whatsapp waaw ak réseaux sociaux yi ni mu koy defee léegi nga xam ne day jël sa programme teg feneen daf ci am mbokk mu envoyé benn affaire bu saf xorom waaw xam naa xamu fa gaa yi jël seen inspiration yi waaye tabarkal la waa ji ne yà ne papa ne ne ne ne ngóor neel sama papa ren mën a nawet si <laughs> ndax damaa bokk ci ay groupe whatsapp waaye gis nga loolu dafa reetaanlu reelu waaye njàng mu ngi ci biir mu ne ngóor neel sama papa ren mën a nawet ndax damaa dugg ci ay groupe whatsapp te groupe bu ci nekk mat na nangami nit te nit ku ci nekk bu ma bëggee jox kenn ku nekk nangami vocal dana ma jëlal nangam ci temps wax na dëgg de. re reelu na nag waaye <laughs> kenn mësu koo gis rek waaw wallaay ndeysaan su ma dem ñuy wax jëmb moom ma ko envoyé yal na ko yàlla yokk wér <laughs> waaye daal vocal bi de xaw ma ñu koy tuddee ci euh, vidéo bi day tabarkal la reelu na lool waaye nag am njàng mu bëri ci nekk yàlla nee na fattaxastumuhum sixriya hatta dikk dikri topp ci nit ñi rek topp ci nit ñi rek di xëy di yàq seen der di xëy di leen wax lu baaxut di xëy di leen ŋañ di xëy di leen saaga ba far yow sa programme yow léegi programme bi mooy ŋañ ña xasteeg saaga ukuntum minhum tadahakun fu ngeen toll di leen ree inni jazaytuhum yawma bima sabaru ñoom ña ngeen doon ree nag teñ muñoon ko daawuñ fayu saaga daawuñ fayu xaste daawuñ fayu ku leen ŋañ yàlla mu ne looloo tax li ma leen di faye tey mooy annahum humul faaizuun ñoom ñoo texe tey ñoom ñooy ñoo ñi nga xam ne ñoo texe tey alfawsul azim alfawsul kabir alfawsul mubin waaw ahmad rafai <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér tabarkalla waaw élément bu am solo la ci daara ji tabarkalla <laughs> ma ko mbokk yi maa ngi suratul xujuraat aaya onze yàllaa ngi aaye xeebaate geeg reetaane geeg lu nu demee bokk reetaan dafa am ay suwar luy ay suwar maanaam dafa am ay jëmm ki ay nit ñoo xam ne ca la reetaan yi jëm ba ca jiitu mooy assuxriya bil ulama reetaan boroom xam-xam yi te boroom xam-xam ci mpinc moo ko weer wi ci asamaan si walla jant bi ci asamaan si ñoo yem waaw sama mbokk ma Hadj Ibrahima Diallo commissaire di san commissaire Diallo ca Padoa yàlla na ko yàlla yokk yërmande ba ma fi jaaree ndeysaan bëgg a dem Tamba waaw ma fi jaaree bëgg a dem Tamba <laughs> far doon tafsir ca jumaay jëppal ja jàkkaarloo commissariat bi fu imaam Sané nekk yàlla ko yàlla yokk wér waaw waxee ca commissaire Diallo waxoon kenn du ko fàtte ndeysaan ak sama gars yi ñoom Asmaana Badiek ñoom Kaaw Amidou Diaw waaw ak soxna Ndiaye ak soxna Safiatou Guèye ak ñi mel ni ñoom seet kon boroom xam-xam au lieu ñu di ko reetaan boroom xam-xam dañ ko waroon fonk waaw ni waa turki fonki borom xam-xam kere ba fa abu ayub al ansaari yi ñëwee waa turki dalal ko ba léegi gis nga nañ mel ci njàmbaar tabarkallu fonk borom xam-xam fonk borom xam-xam ni waa afghanistan waaye fonk borom xam-xam ni sunu mag ñi waaw ni sunu mag ñii ci réew mi fa dunyaakum wa haakum nu ko ci am soxla xaaj Malick si àdduna mu ne mun a jël leen leen rek laa fi soxla mooy xam-xam ginnaaw xam-xam sopp yonent bi ginnaaw sopp yonent bi liggéey waaw mooy suñ tubaab ñun waaw wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami <laughs> moo tax nun ñëpp nu jox loxo ah, Cheikh euh, Cheikh Muntaxa tabarkal yàlla na ko yàlla yokk wér te soqali ko suqali daar ji te lii muy def nii àgg ak jàmm ba nu indi gi de ko tabarkàlla mbokk yi maa ngi suuratul xujuraat aaya bil ulama ree ree borom borom xam-xam leen léeg-léeg nit ne ci koñ am ustaas bu ne ca koñ ba walla jàngalekat mbubb mi muy sol léeg-léeg mu sol ko at ndeke moom rekk la am dàll yi muy sol la léeg mu solo comme at te kat mooy tudd doom ya mooy sang néew ya mooy feral xale ya mooy léemu séet ya ah waaw waaw lii lépp moo koy def waaye tabarkàlla bu ñu noppee rek oustaz jazakumullahu xayran xutba bi am na solo ah baax na noonu kenn du ko téye boroom xam-xam déedéet sunu boroom daf ne yonent bi bu ko kenn nuyooti loxoy neen boroom xam-xam nun la mel waaw ñoom oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñoom ñii ñoom Imam Fadilu taal waaw ak ñu mel ni ñoom ah ku ci nekk waroon nga def ni waa Soudan boo ko laajee sunu mbokku Amadou Loum ñoom boroom xam-xam jaral na leen ñu daggal leen sol laaj ko góor gi Ahmed Gay mii nekkoon ci Daaru Gay gii waaw fu mës dégg boroom xam-xam mu daggal mu daggal la ca am ci ci wërsëgam nga ne ko lu xew mu ne bëgg a bokk yow sama wërsëg wi rek kon asuxri bil ulama ci bàkkaar yi la bokk ba asuxri bil masayix reetaan sëriñ si ah reetaan sëriñ si xeeb sëriñ si waaw defe ne sëriñ si defuñu dara léeg-léeg nga dégg ñu ne sëriñ si war nañoo wax waaw maanaam nga jëlee sëriñ si seen programme indi leen ci sunu programme nu bokk yi wax nun ñëpp ñoom nañuy waxee ak fa ñuy waxee da bokkut ak ñun fi ñuy waxee rek tabarkal waaye ñëpp a ngi wax euh, tànk ak loxo bopp baat bët gémmiñ maanaam cër yi dañoo am benn bis ñu xeeb li biir di def maanaam biir mooy chef bi waaye xeeb nañ li muy def ndax xamuñu ko ñu xëy rek geraw ni biir bu dee nun dong tey doo mos ci bu jën waaw xam nga boo ko defee biirub biirub biirub ndaw kondaa tey nga dugal ko ci coono waaw cër yëpp lànk tànk ne man de du dem marché tey waaw bët ne man de du xool am ndugg tey làmmiñ ne man de du ma waxaale tey waaw tabarkàlla loxo ne man de du ma ngàbbu poset du ma ngàbbu pañe tey ñëpp gerew biir toog rek joxuñu ko ceebu jën <laughs> ngoon jot joxuñu ko cere bët set joxuñu ko kafe moom moom rek ñoo moom rek ba muy am ñetti fan ca ñeenteelu fan ba cër yi tàmbali yëg grève bi cër yëpp tàmbali yëg grève bi <laughs> kenn musu koo gis rek loxo mënut yëkkati ko toxoñ bët tànk mënut dem ca wana wa tabarkalla bët commencé lëndama ko def yëf waaw làmmiñ na leen grève bi la ah bon waaw grève bi la nañ dem négocier ji <laughs> xam nga ñaar ñuy xeex ba mu yàgg nga ne kaay attinu ku leen att ñu jël ala kulli xaal ba ñu jeexalee geraw ba ba tibbaat ab tib jox biir tibbaat jox ko tibbaat jox ko ba mu amee quarante vingt quatre heures mbaalu ko jege mu tàmbalee jox cër yi seen wàll ca yëf ya lañ door xam ne ah ndekete kii moo ñu daan rabitaaye euh, euh, tabarkalla yi ñu daan am xorom seeg sukkur seeg loolu nunu ko Cheikh Cheikh Sey di waxe góor gi Cheikh Cheikh Sey def naa noonu la tudd waaw ni mu koy jàngalee ci télé bi tabarkalla mbokk yi reetaan borom xam-xam garaaw na reetaan sëriñ si ak xeeb leen garaaw na waaye al na bil maaruf ñi nga xam ne ñooy ne ci pénc mi digle lu baax ak tere lu bon waaw ñoom Oustaz Sarr ca DTV waaw tubarkalla ak ñi mel ni moom di dégle al maaruuf ñooñu ku leen munta jàppale bul àgg ci leen xeeb mbaa nga di leen ree mbaa ngay teg ci seen der kàddu gu teguwut yàlla bëgg ko ñiy teral lu bon it noonu la ñuy déglu lu baax ak ñuy teral lu bon waaw ñooñu kenn du leen kenn du leen saboote kenn du leen reetaan tabarkal sabote leen baaxut reetaan leen baaxut xeeb leen baaxut xeebaat ci boppam moo baaxut nag rawatina ñii nga xam ne tabarkal ay tànneef lañu te itam ñi ngi def seen kemtalaay kàttan ci pénc mi ak loo xam ne da koy jagal kaay leen ñu dem naag yéen ci suuratu at tawba ba àgg ci aaya 65 waaw 65 suur taw mooy saar bi nga xam ne amul bisimilah rahmaan rahim déedéet yàlla daf ne bëri rek tabarkàlla songu yëf ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactaziruu faqad kafartum bacda iimaanikum in nacfu an taa'ifatin minkum nucadib taa'ifa nucadib taa'ifatan bi annahum kaanuu mujrimiin ndeysaan professeur dafa am jamono ca jamonoy sallallahu alayhi wa ay gaay yi ànd nekk ci ab deram ndax nit ñi am nañ fit wutal noonu léegi taalibe yu toog nekk ci seen deru sëriñ si xaw ba liggéey nee na très dangereux waaw Cheikh Balla Gaye mënu ko jàngal wax na dëgg taalibe yu toog nekk ci seen deru sëriñ waaw di corriger seen sëriñ allahu akbar bu ko defee prise bi doxoon seen diggante ñoom ñaar mi ngi tàmbalee roppeeku mi ngi tàmbalee dagg waaw kenn mësu koo gis gaa yi àndi dox ba mu yàgg ñu nekk ci seen deru sëriñ seen sëriñ bañ muhammadun rasulullah mu yéen waaw waaw waaw mbokk yi ab sëriñ kenn du ko kenn du ko xas kenn du jël débat ci moom di corriger ko wërte def nangam mukk loolu li tax ñu njëkk ña daan jariñu lu ëpp lu mujj ñi di jariñu lu mujj ñi dañoo dëgër fit internet ak facebook moo leen tax a dëgër fit léegi ci seen sëriñ waaw ah gaa yi di waxtaan naan ah muhammad de moom yonent bi kat la wax sallallahu alayhi wa moom de benn nopp la moom daal sëriñ la boo xam ne ku njëkk wax rekk mu gëm la waaw moom daal loolu rek la fi nekk ku njëkk a wax rek mu gëm la loolu kat la ñuy débat tey yonent bi daal moom ko wax rek mu gëm la yàlla nee na bu ñu leen laajee lu tax ngeen di wax lii yéen lu tax ngeen di wax wax ji ah ñu daan ne innama kunna na wa nalab dañ doon kaf rek aka fo ñu ne loolu dañ doon dañ doon dañ doon kaf quoi bon affaire bi garaawul wax sëriñ bi benn nopp la garaawul suñu boroom ndekete affaire bi garaaw na ci moom mu dugal ko ci saar wi nga xam ne amul bisimilah rahmaan rahim aw tëll ci seen kaw xul waxal ma leen abillaahi ndax yàlla wa ayaatihi ak alquraanam ji wa rasulihi ak yonantam bii kuntum tastahzi'uuna ngeen di foye ah yéen amu leen leneen lu ngeen foye xanaa di foye yonanti beeg yàlla laa ta'taziroo waaw génn leen diine ji bu ma kenn jox ngànt nag naan tëyunu ko xadd fa xadd kafa ngeen baal ma xadd kafartum nekk ngeen yéefar léegi ci lii ngeen def yonent bi moo leen def yéefar baada imaanikum ginnaaw bi ngeen gëmee ah ngeen baal ma ci too bi xam naa too ma sax gën naa njàng bii waaw la ma góor gënoon ñàq nga sama añ bi keroog ba ma waxee eh, <laughs> tubaarkalla ba may firi jéem a firi na malaaka ma tontu woon gaayo waaw waaye daal kàddu gi gën naa njàng kàddu gi nekk ci deru sëriñ bi di ŋañte ŋañte ak di ko yàq ak di ko bind ci facebook bi ak di ko wax lu baaxul buñ la waxee nga ne dama doon kaf dama doon fo yàlla mu ne ah du ngeen wuti lu ngeen kafi mbaa lu ngeen foye xanaa yàlla ak yónent beeg alxuraan ah yooyu ngeen di foye léegi loolu mooy seen temu fowukaay loolu mooy seen débat laa taatasiru xad kafartum baada imaanikum seen gëm yàlla dem na bokkatu leen carton rouge leen suñu borom jox tel ñu génn allahu akbar mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot bokk na ci reetaan yooyu nu yàllay tere reetaan nit ci liggéeyam ndax dangaa xeeb mécc mi am am na ci pénc mi mécc yoo xam ne dañ ko wutal ay sant xeeb xeeb sant wa ndax mécc ma ba bokk ca sant woowee léeg-léeg nga ñaan jabar ñu gàntu la mu yéen ana inna akramakum indallahi atqaakum ana mu ana inna akramakum indallahi atqaakum mi ngi ci saar wi waaw waaw mi ngi ci saar wi waaw waaw aoudu billahi min alsheytan arrajim yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha innaa xalaqnaakum min zakarin wa unfa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila li tacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabiir teg leen seen baaram foofu mbokk yi ñu ñaan yàlla dund ba àjjuma te weesu ko yal na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ko wër yal na yàlla suqali daara yi ak ñi jàppale daara yi na nañ gis suñ bopp ci tafsir bi ba dootuñu xeeb kenn dootuñu reetaan kenn dootuñu xas kenn dootuñu yàq deru kenn rawatina sunu borom xam-xam yii rawatina sunu sëriñ sii na ñuy digle lu baax na ñuy teralu bon yal yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen. ñu bàyyi la nag ci kanam tuuti ak suñu mbokk alaaji sëriñ Mbàkke Sylla ci jotaayam bii di xamtu yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy ci def ci suñuy poos dara ñu àndaloon ci wax tafsir bi moo di seen mbokk Alioune Sall wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu